xaar ma bett matam xool ba xam la lay togg si waañ bi bé looy def looy def ngay retaan xool li nga teg mi ngi daan loo togg nii waxoon ceebu ceebu géej lay waxoon waxoon hmm? hmm. ak lan hmm? ak lan lii laa lii nii lii mooy bagage euh. papi. non c'est que da nga garaaw quoi <laughs> <laughs> man non, je vis bien je vis bien vous êtes sur l'imamiti.com, l'actualité des stars, people, divertissement et faits divers au Sénégal et en Afrique.